to ye gambia bonde duniya bantala ye gambia itande duniya mawol bela ye ah, gambia dingol fango ye joɗiño kan pour ka baadiya coki gambia dingol ye oto kammala ñanta duwale fanfan duwami ye lon ko abuka mu ne yow de yo excellency war nañ ñaanal bu baax ñaani xaas gannaaw boo xamee ni ni da génnee doomi gambia ekati leen ci loo xam ne ni e, ñëpp gis nañ ko ci lu kenn du weddi e, kon nak loolu tax na ci biir réew mi fii ak ci biti yëpp ñaan moo war a nekk suñ diggante yow ñaanal la kenn di président jambe gana kebe debari o nga kirsenga le chondi wona kuyanga angani yakandu kube tugana kalan kompe kedi yanka ilakangen timmandi kesuni angati yakandu nankala ako hansay po ka itela ko e, ikanu eh, karamundo dingo dingo men yalon ko ikela karamundo joke aiko ko jita sayi alay conde ko aɓe fanayitande lela ko ibe doko men ke kan o doko betola esa foye ko yenni mbara mu ne alaaji condi mu ne ñu ngi laa wax ne jërëjëf ñu ngi la ko santa gana boo xamee ne ni xale yi nga xam ne nii ñu e ngi doon jànga e taxawu seen jànga jeexal nañ seen njàng ci ko loolu nag ñu ngi la cee delloo njukkal di la gërëm di la santa kindaña sili gabe xa ñaxali ga suuxu ku ñaxanu di gabe toxon caxa wa mu ne yan continuer pour que jamea ku mbinu xan compintu gamega yanqana suyotano xawaŋani kun xa wa kilinantiwa jone xanani kei pour a demannen kama wa ma arna joka a ako ila do o do ku beto kamala mo jama do me ko lon ko hansa e safi be ke kan ne pour ka ko karango me yalon ko ya fasa pour i fana na xamoo le ye karango ke fo yaban tumo men na ye makoro ke dole ci sa liggéey bu baax bi nga xamne ni def nga ko ci walé njangami loolu tax ñu bari am am nañ encouragement bi ñu ngey bindu eh, ngir tabbi ci njangami nga xamne ni nii eh, bu baax bobu len yow ya xala yoon wi ina ni nanti agara kerabe sponsor kala ngom gëna nga pour na angelen kala ina science ngara o ministre ngure ya ora ken karonna di moga ne lan kala en kapaye solongala joppi nantina anglais kara na science nka na e, hoybigani duna duna communication nkara ke kenga binga khalla ke lengi kenda nya agara sembe be kini ken chembe wadona ma arna ajo kawiyum ko hansay ibe duwa kan tumo na madrasa karamol to ye karamo dunde je me yalon ko o mo angle talati kata science la anin karamo me yalon ko a ka ke tuba kan wala o pour ka je ko e, karamo me yalon ko ya fasa ya sembenti yandi akwa be hansa duwa kaula wala ise abe duwa ke lawla la ngi laa ñaanal itam di la gërëm ci ngir madrasa yi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi fii fi mu nekk nii dugal nañ fa yeneen njàng yoo xam ne ni njàngi angale la science ak yeneen njàng yoo xam ne nii gën naa màcc loolu bente dafa yokk yi nga xam ne nii mooy njàng mi mu gën a yëween loolu ñu ngi la cee gërëm di la ci sant kincaɓe ɗan waɗande langan galadi pour kesu soyontumi hakkakita o magadi amen gabondi wonata président jami hen cukonno onta gille eh, president baga ke chairman baga notice andi hakkata nyame hakkende kono ngani en goyna to hoga ni salam kulla nyai ho ho gani akati isu isuwan palle wa duwan ngani marna gambe no nanki tinga annan ka betini anan ka palle mo ma ay xon ko tan ako sai ila karambo to je ye urara karam karang do fanan kumasle pour ka je ko karango me yalon ko yakuma yandi pour ka be sikeno la hammo membe to o sita o ñatule gambe asrahulol bebe ilori koma e baytele ko ila dow kuñima mi e kake banko e han sa ɓe duwa ka ila hamo mente pour que gambia ke sifo sifadi e sa ɓe duwa ka e pour ise o sotono mone sen jàngu sen jàngu e fi mu nekk ni am nañ mm. waxtu boo xam ne ni waxtu ngoon lañ fa e, yaatal pour ñu faa jàngale su ko defee yi nga xam ne ni moo di bunti xam-xam yu bees yi ci yokku ni loolu ñu mun ko fa matal te ci ko loolu bokki saraxule yi nekk ci réew mi fii yëpp ci kontante boobu ànd nañ ci te ñu ngi la cee gërëm di la sant ci li nga xam ne ni moo di yaatal boobu leen ci wàlli njàng mi kiyani président nga wasikiri wa duwana ngana mana gamberi kane ana juka nguyunga na ri gama kota ngana ri ka kore kinanga nangu kigilondi qur'an hamani wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi ay kumolla banka duwake his excellency banko kono ani banko dingo be pour kayro ala fa gambia banko kan sarahulol be to yala ci turi sarahule ñaanal na ak réew mi pour jàmm ak salaam mu nekk ci réew mi fii ari والسلام عليكم ما وحدي عربي ها نعم السلام عليكم كيف الحال الحمد لله Honorable Minister, and translate. and all members of your remarkable government. Yes. I'm extending this greeting to all of you. mu ngeen nuyu président ak ñi fi toog yépp. يلا فاسي واسي يا شيخ كلم هنا في المايك وسلم عليه وعلى الحكومة وعلى الشعب جميعا جاي متسلم عليه من طرف جالية الموريتانية This اللي أحمد سوفارا جاي من جابتنا The greeting that I'm bringing here is extended from the Mauritanian community to the Gambian community through our able president, His Excellency, Sheikh Professor Dr. Yahya Abdulaziz Jammeh, and all these venerable sheikhs and scholars who are here present. nuyo bima fe wax ni mu ngi bàyyi ko suñ mbokki mauritanien si ñëw nak pour suñ mbokki wa gambian ni jarale ko nak ci eh, président réew mi لله نقول قالوا هذا الأئمة ما هنا وقع شي قد قالت لا لا قول العربية الخالص يا شيخ العربية موطنية ما هذا الذي نحب أن نقوله هذا الذي نحب أن نقوله هذا الذي نحب أن نقوله قلنا لك قلنا لك ألوف قبلي

في, في, في قضية الإسلام والمسلمين جابوا كله about the our religion which is Islam and the affairs of the Muslim whatever I should say in it must have been said by the previous speakers suñu wàlli islam ak diine ji lépp loo xam ne bëgg naa ko fee wax ñi fi jiitu woon wax nañ ko الجالية الموريتانية هون سلم عليهم جميعا وتبارك الله بأمان تبارك الله